Touba kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi nabaat Touba kanam wajalilaahi maskani Touba baat misras mi abijaayi nabaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo ci moo di nuyoo bi lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di jiital ci nuyoo bi ak uh, siyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général de Mouride te di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala yàggal ko fi lool ca moo ànd ak wér moom ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi yépp ak njabootu lislaam gi yépp mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki ànd ak ñun ci seen télévision bii di Touba Monde bi TV lëkkaloog rajo xasida online tuwa Monde bi ñi ngi leen di nuyu lu bari ci di leen siyaare di leen baalu ak ci di leen koy baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu baal di amati loolu mbégte ak kontante di faskene andati ak yeen ni ñu baaxoo àndee ak yeen tey nag ñu teew fi nga xam ne moom moo di ci réewum gambi ci dëkk bi nga xam ne mooy serekunda ànd ci ak waa Touba ca kanam waaye fekk si fi daayira bi nga xam ne mooy daairatu mafaatiwul jinaan ca mbokki ne ci li ci def liggéey bu am solo ren nag ñu amal sant Serigne Touba mu nekk juróom-benneelu yoon muy sixième édition waaye ci bés bu am solo boobu tam ñu duppee ko nag lenn ci ay jàmbaar islam yi nga xam ne ñu ngi ci réewum Gàmbi ca di fi liggéeyal lislaam di fi liggéeyal Serigne Touba. ñu tànn ci kenn ci ñooñu muy seriñ Mbaye Tène mi nga xam ne ku nekk xam na ko ci liggéeyal Serigne Touba waaye ku nekkit xam na ko muy kenn ci jàmbaar yi nga xam ne ñu ngi taxaw di def liggéey bu am solo ci Touba ca kanam. mu mel ne danañu fas yéene ànd ak yéen kon indi leen liggéey bu am solo boobu nga xam ne waa daayiratul Masaalikal naan amal nañ ko ci diwaanu Serekunda waaye tam teewaay ak liggéey bu am solo bi nga xam ne tubaa ca kanam def nañ ko fi ak seen délégation bi nga xam ne moom la ñu àndaloon kon mbokk yi lii la ñu leen fas yéene indil ngir fas yéene cee ànd ak yéen ci Touba Monde bi TV ak ci rajo Xassida online Touba Monde bi mu mel ne bi ñu yegsee nag fekk nañu jëwrit yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal liggéey bi ak mboolem taalib yi nga xam ne ñoom lañ ci àndal ku ci mel ne Serigne Pape Demba Diop mi nga xam ne mooy représentant xalif général di Mouride ci diwaanu Gambie ànd ak taalibe yépp ci liggéey bu am solo bilee waaye itam ki nga xam ne mooy sëriñ Abdoulaye Ba mi nga xam ne mooy jëwriñ yi daayira bi nga xam ne mooy daayiratu Mafaatihul Jinaan bu Touba Serekunda ànd ak taalibe yi ci liggéey bu am solo bile waaye délégation tubaa ca kanam ñoom it teew fii ci njiital sëriñ Abdoul Ahad Lo waaye ànd ci ak ki nga xam ne mooy sëriñ Xaadim Thian mi nga xam ne moom mooy coordinateur général bu Touba ca kanam ci diwaanu Gàmbi waaye ñu fekk si fi sëriñ Mbaye Ten mi nga xam ne kenn la ci ñi ñu tuddee bis bi mu doon jàmbaar islam di taxaw taxawaay bu am solo ci diwaanu Gàmbi waaye tam ci biir délégation bi ngeen ànd ceeg seen mbokkum taalibe Modou Assane Ndiaye ci su commission communication Touba ca kanam ci diaspora bi kon mbokk yi nii la jataay bi nar a tëddee incha allah dinañu ànd ak yéen ci teewaayu délégation Touba ca kanam bi mu yegsee ci diwaanu Serekunda waaye ginnaaw loolu incha allah danañu ànd ak yéen ci programme bi mu mel ni kilifa yi nga xam ne jël nañ fi kàddu ak mbokk yi nga xam ne fi Touba kanam cay def liggéey bu am solo ñoom it danañu leen dékk suñu micro waxtaan ak ñoom waaye itam cérémonie officielle bi ak kàddu yu am solo yi nga xam jaar na fi itam Euh, waxtan wu am solo wu nga xamne serigne sëriñ messere mesere def nako fi kon li leen ko andil ci euh, liggey bu am solo bi nga xamanteni dairatu mafatihul jinan bu tuba serekunda amal nañ ko waye tam delegation tuba ci kanam tew fi def fi liggey bu am solo and ko ak euh, ñom daaira bi nak ñu leen sante bax leen ndax def nañ lu am solo ndax bis bi bisu sante serigne tuba la ñu di amal ren nek juroom ben yoon muy 6e édition waye nak dañoo yaatal tuba ci kanam jaglel leen ben patch bu yaatu lol ci liggéey bi ngir ñu mën a amal seenu liggéey yaatal liggéey ba talib yépp man cee jot kon dañ koy sant parce que yéen ànd ak yéen andi leen ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni Touba ca kanam amal na ko ànd ko ak waa daayiratul masalikal jinaan ci diwaanu Serekunda kon ci kanam insha allah ngeen topp ñu ñu dugg ci programme bu am solo bu nga xamante ni fees na dell ak njariñ kon ñu ànd ak yéen ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokk yi ñuy seetaan ak euh, Touba Monde bi TV ñu ànd ci ak xasida online waaye ànd ko ak communication daaira Mafatihul Jinaan bu Touba Serekunda tey nag yamook samedi benn fan ci weeru juin 2019 di 2019 euh ñu am fii bis bu am solo mooy juróom-benneelu cant Cheikhul Khadim bu daaira Mafatul Jinaan di amal fii ci Serekunda ci Westfield yàlla dogal nag am lenn ci mbokk taalibe yoo xam ne dañu leen a cëral ci bis bi eh, te kooku nekk membre Touba ca kanam ñu di ko wax mbayten bu Gàmbi gannaaw ba mu ci jokkoo kilifa yi nag ci taxawaay bu am solo boo xam ne dégg nañ ko ci Mafatul Jinaan Touba ca kanam yabal benn délégation boo am solo ngir mu ñëw fekk si gitaay boobu. kan moo jiite boobu délégation Serigne Abdoulahat Lo di membre comité directeur waaye nekkaatit membre commission finance waaye nekkaat. membre euh, diaspora bi jité commission bi ñuy wax étude et réalisation ci Touba ci kanam mom mo jité euh, délégation bi mi ngi and ak Serigne Moudou Assane membre Touba ci kanam wayé bokku ci commission sous commission communication bu diaspora bi téwal leen fi ci communication wayé mi ngi and ak Serigne Khadim Thian di général bu Gambie des membres commission massification, des membres commission communication, des membres commission comité de chasse, ouais, des membres commission ASA commission bu Afrique présidents ngi la commission de l'Afrique, Gambie adjoint coordinateur général président comité directeur Nous ñu que euh, nous ki finance commission finance de sëñ Ibrahim Diop waye ñu am secrétaire général bu Touba ci kanam Gambie di Serigne Saliou Ngom ñu am président massification di Serigne Am Diop ak mbollem membre daire ma fàttul jinan yep bis bi nak tagge bo gis day am jappal diw kan mo waral lu melni am moy Serigne Abdoulaye Ba mi nek sama ndeyjoor nga xam mo jité kurelu daire ma fàttul jinaan di kenn ci jàmbaari Serigne Touba yi ne ci réew mi don ndaw andak kurel gu lu mat fukki at ak jurom japp fukki at ak jurom ben lepp di rafet ba bisu tay jii ñu jël bis bu am solo bi nga xamne moy bisu bisu jinan delo wat ko njukkal mom mi ak ku mel Serigne abdoulat Fall ak yenen soxna yo xamne ñing ci bir mbolo mi ngir sen peuf sen njambar tax ñu def lu mel non kon ngir baña guddal rek damay jox kaddu gi ki nga xamne modi Serigne Abdoulaat Lo mi jiite délégation bi mu nuyu mbooloo mi bu noppee ñu jox kàddu gi Serigne ablaay Ba mi nga xam ne moom la ñu fekk si mu dalal ay ganam tatagal leen ñu jox leen dig daje incha allah ci guddi gi lépp lu fiy tukkee rek juróom benn fukki réew ak ñaar yi nga xam ne ñi ngi ciy Touba ca kanam incha allah tey Mafaatul Jinaan mooy daayira bi njëkk adhéré wala daayira bi njëkk héberger dalal Touba ca kanam ñu war a dund ak moom lépp lu fiy am ci juróom benn fukki réew ak ñaar yu génn Euh, Gambia ngir liggey bobu ñu mën ko and ak mom lan mo leen ko may nak moy seen peuf seen jambar seen deggu seen jaar ci ndigal waye bëgg lu baax ak yaatal moo tax ngeen am lu mel noonu kon dañuy jox cadeau gi Serigne bladlo euh, nga nuyo ak gay euh, joxe nak délégation bi ngeen ñëw ak ñu do jox ba inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa tuba ci kanam ñi ngi leen nuyu bu baax di leen ziaré di jital ci nuyo bi khalifatul am di tarixatul muridiyah di nuyu bu baax euh, sëriñ Abibu mu sëriñ Mouhamadou Fadilu mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi di nuyu sëriñ Abdoulahat Abibu mi tegu ci moom ak euh, président sëriñ Abdoul Fattah Gueye di nuyu bu baax euh, tey jii fii ñu ñëw Gàmbi le coordinateur général sëñ Khadim Thian ak waa daayira bi nga xam ne tey jii ñoo ñu fi dalal di wax ne sëñ mbay ñu ngi lay ziare bu baax a baax di wax rek ne ñu ngi kontaan bu baax ci ñëw bi ñu ñëw tey Gàmbi muy ñaareelu yoon ñu ñëw fi di yaatal liggéey bi waaye tey jii nag mu nekk ci anam boo xam ne anam bu bu yéeme la ndax euh, boo xoolee euh, yoonu murit defe naa ne euh, ay ndaw rek ñoo ko taxawu ba mu agsi fi mu agsi yoonu murit tamit lépp lu fi ma a taxaw ci nii ko Touba ci kanam di collecté ci la taxawee muy raay bi muy jumaa ji muy masa ba ci Masaalikul naan lépp lu ñu gis ci yoonu murit rek murit yi ñoo toog def seen ñaar fukk ak juróom-ñett dajale benn par benn ba def ko kon tey jii nii bu sëñ Abib mu sëñ Mouhamadou Fadilou lancé ñaari million ngi murit kenn ku ci nekk ñaar téeméer muy ñaari milliards ci at bi ci ci weer wi di ñaar fukki milliards ak ñeent ci at bi pour que ñu jël ko dugal ko ci Touba taxawu social bi taxawu lépp loo xam ne rek dootuñu xaar dara ci état bi kon defe naa ne murit yëpp buñ ci jàppee sëñ Muntaxa tamit feddali eh, daaw mu ak daaw jéeg yëpp mu cotisé juróom nit tey mu cotiser juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent defe naa ne loolu ab soññee la euh, nga xam ne tamit Touba ci kanam ci ñaari at rek defar nañ ñeenti poste de santé ci gabu 108 postes de santé euh, kon defe naa ne ak yeneen ak yeneen réalisation yoo xam ne euh, ñi ngi koy def ñëpp teg nañ seen bët waaye daal ñuy sant rek di wax ne daal tubaa ci kanam mbirum Serigne Touba la du mbirum kenn ki ci dugg démb ak ki ci dugg tey ñoo ci yem. li ci am moy jënd sa carte de membre joxe sa 12000 xaliss bu dugg bala muy euh ci lu leer lay génn ci ay signature yo xam lepp seigne sëñ moy mujjé mujjee signé pour mu génn kon defe naa ne lu murit yépp am yaakar la té ñun maa ngi ñaan nak Sëriñ touba defal ñu ba yaakar suñu muntaha bañ ci tass ba li ni faw ko suñu njort ba lépp lu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa rek ñu liggéeyal ko si. waaw sëñ Baye jërëjëf ñu ngi sant bu baax rek di gërëm di jaajëfal ñëpp rek di wax ne am nañ mbégte am nañ contentement ndax ñun benn kuréel lañ boo xam ne daayira lañ di yëngu ci liggéey Serigne Touba Touba ci kanam tamit tënku doon kuréel buy yëngu di liggéey sëñ Touba kon dafa mel na ñun ñëpp ku ne da ngaa yor sa waar ci biir tool bi ñu bokk di bay yàlla dogal tey ñu dox te suñu waar yi bokk daje loolu di am mbégte euh, am contentement ndax booy xool tool buñ ko defee waar bu demee ba waar yi daje ñàkk a seq dañuy am mbégte lool ca daje ga euh, ñëpp kontaan euh, kon ba tax ñi ngi bég ci lii bu baax ndax ñoo bokk tool bi. li ñuy liggéey sëriñ bi lañ koy liggéeyal moom lañ koy yóbbul ñu ne li ñuy liggéey sëriñ bi lañ koy liggéeyal moom lañ koy yóbbul kon sotti ceeg def ci lépp benn la ñu ngi rafet lu baax teewaay seen teewaay fii di leen jaajëfal di leen masawu coono yi ñu def di leen sant ci effort yi ñu def yëpp ba ñëw teew ndax fii ci dëkk bi ay taalibe ngi fi yoo xam ne mën na ne ñoom ñëpp dañoo bokk ci Touba ci kanam waaw Touba ci kanam moom euh, comme ni ma ko waxee woon rek léegi maanaam daayira boo dem da nga fekk donte benn membre la boo xam ne bokk na ci Touba ci kanam kon Touba ci kanam ak daayira yi ñoom ñëpp daanaka benn lañ kon ba taxna na daal ñi ngi leen di ñaanal initiative bi ñëpp rafetlu nañ ko apprécier nañ ko yalla nañ ci góorgóorlu rek ndax euh, lu bax mom mo yombul galankor yi bari naag yu nekk waye ñu japp to bar te xam señ Sëñ mom lim daj asaka ji duñ ko daj lepp kep ku wax na da nga liggéey señ Tuubaa rek jeexital yoyu nang ko sentu ne di nga ak mom ndax li ngay dégg ak liñ lay wax ak liñ lay def yoyep da nga xam señ loñ lañ ko doon wax bam yegg fam jëm Cheikh Ibrahima mii buntu yoon wane suñ Tuubaa it noonu la deme woon kon lii ñu génne mu initiative bu bees gàllankoor yeeg yi ci xew yëpp nit ñi dañ koy xam waaye bu continuer di demee nii ci mbooloo yi nga xam ne ay daayira lañ ak mbooloo yi daje di def bis ñu koy ubbi ci seen bopp dina dem ba yooyu yëpp dina wàññeeku donte du jeex. Euh, ñu ñuy lancé appel comme ni nekkee jëwriñu daayira jiite mbooloo suñ moroom mi jëwriñu daayira ne ci àdduna bi yëpp ñuy wax ne nañ lëkkaloo ak ci kanam. ànd ak ñoom ci seenub liggéey rawatina seen i événement ndax ñoom li ñuy def liggéey boobu dañ koy ànd ak taalibe yi ak daayira yi kon ñu jàppee ko noonu rek te bañ koo gisee neneen lu dul ne initiative la pour Serigne tubaay yi mbiram gën a yaatu gën a jëm kanam kon dañuy gàttal rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di siyaar tey sant nag daayira Mafadu ñaan ñi nga xam ne tey event bi ñoom ñoo ko organisé ba Touba ci kanam ànd ak ñoom ñëw teew si ci di kilifa tubaa ci kanam yi ñu bokkal dëkk bi yëpp ci njiital sëñ Xaadim Thiam mi ak yow sëñ Bayten sëñ Saliou ngoom sëñ Am Diop euh, ñi ci nekk ñëpp daal suñ limee rek dañu am ñu ni desal ak sëñ Ibrahima Diop suñu jëwriñ mi kon jërë ngeen jëf di siyaar suñu gan yi fi teew yëpp jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf Ablaye bala ngay dem euh, sëñ Xaadim Thiam gannaaw boo xamee ne say gan yegg si nañu di laat loo ànd ak délégation bi nga fekk fi ñu ngi doon liggéeyaloo muy say ndaw bokk ci man ak Saliou sëñ Ibrahima ak waa comité directeur bi yëpp ñu dalal gan ñi euh, sëñ Abdoulaye Ba mi nga xam ne ñoom ñoo organisé bis bu am solo bi di Mafatul Jinaan nga dégg kàddu yu ñuy wax lan ngay wax euh, délégation bi lan ngay wax sëñ Abdoulaye ak lan ngay wax mbokku taalibe yi ak sa mbokk coordonnateur yi ne ci àdduna bi yëpp lan nga leen dénk ngi ñu gën a mën a yaatal liggéeyu sëñ Tuubaa bi. Euh, mbokk jullit yi yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax di. siyaare daayira Mafatihul Jinaan di nuyu njiit li Sëñ Ablaay Ba mu doon ku xam bu yàgg wax dëgg yàlla ci liggéeyu Sëñ Tuubaa ba noppi ki fi Sëriñ Tuubaa boole waan ñu comme ni ma boole woon ak Sëñ mbaytan mi di nuyu Sëñ Ibrahima Diop di nuyu Sëñ Am di nuyu Sëñ Abdoulaye Lo di nuyu Sëñ Modou Assane suñ caméra bu am solo bii bu baax bi te yewen di nuyu mbollem ñi nga xamne ni ñoo daayira bi ak membre yi daayira bi bayiwun kenn di rafetlu nak euh, wax deug yalla jëfin wi ak doxalin wi ndax aduna euh, euh, dara du fi doy ci lu bax waye kep ku def lu bax rek wax deug yalla na la gërëm dees na la sant Li nga xamne mom la daayira bi def ci njital sin ablay, wax deug yalla ñi ngi soñu bepp daayra ci àdduna bi ci continent yi quatre continent yi ñu roy leen ci ndax roy lu baax euh, dana tax a baax roy lu baax dana tax a dabe te nii ñu def nii wax dëgg yàlla mooy wane ne sëriñ bi lim yor lenn la te ku yor lenn séddale ñu lenn loo xam ne nii dañ ko war a téye te séddoogun ko su fekkee ne dem na ba ñoom ñu am seen bis xalaat ne euh, am nañ fi ay mbokki taalibe yi yu jàmbaare ñu fob bis bi cëralee la ci yow seen baytan te nga bokk ci membre yi gën a actif ci Touba ci kanam mu doon cereb gam bi ñu koy sante yàlla kon buñ xalaatee loolu wax dëgg yàlla dañ koy dañ koy rafetlu te di ko di ko di ko di ko encouragé te di fexe ak di ñaan bépp ku ñu dégg rek te liggéeyal Serigne Touba rek nga am xalaat bi suñ ablaay am ak ñi mu àndal liggéey bi kon asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon mbokk yi lii moo nekkoon euh, arrivé bi nga xam ne Touba ci kanam def na ko fii ci Gambia ànd ak euh, Touba Monde bi TV xasida online foofu ci diwaanu itali ak mboolem ñu seqal liggéey bi nag waaye jaar ci Serigne Abou Bousso président relation extérieure mi nga xam ne liggéey bi ci euh, tutelam la nekk muy commission relation extérieure kon mbokk yi ñu jox leen di daje incha allah ci kanam rek ak bis bi dina am solo nag ndax xam ngeen ne Serigne Akassa Samb mi ngi fi. Serigne Soy bu mbub mi ngi fi Serigne Ganna Mesere Maxtaar mi ngi fi kon nag bis bi dina am solo la kon mbokk yi fu ngeen ne ci àdduna bi rek moo xam ci internet bi moo xam ci rajo yi moo xam fu mu doon eh, xaar leen ñu fii ci eh, Gambia ci Westfield ak Mafatihoul Jinane incha allah rabbi wasalaamaaleykum wa rahmatullah